taxawaay bañ ci war taxaw yépp luñ mën danañ ko ci def luñ mënuti danañ ko ci jéem ngir sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.